xam ngeen ci suba ak léegi am Amsatou Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad mi ngi fi di dundal gàmmu gi ànd ko ak sëriñ Mouhamadul Mountakha waaye ànd ko ak kuréelu Hizbut Tarqiyyah waaye ànd ko ak njabootu sëriñ Touba gépp ci ni mu jëlee woon ndigal li ci sëriñ Touba Cheikh Salihou Mbacké eh, te jii nag eh, rakkam di xaritam di Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yore kàddug xalif général de Mouride eh, ñëw fekk si ko ci gàmmu gi fii ci kër sëñ Touba gi Eh, saafante ak moom waaye eh, war fee yëkkati ay kàddu rek ci taxawaay bi nga xam ne eh, sëriñ Amsatou am na ko fii ci kër sëriñ Tuubaa gi di dundal gàmmu gi te bokk ko ak moom ak ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi santaane ci ñi di ko dundal ci moom dundam gépp mu jeexaloon ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasalam sallam mu nekk guddi gu am solo goo xamante ne bii fees na dell ak ay njariñ ak ay ngëneel. waaye eh, boo waree jumaa ji ak li ko wër lépp ak ëtti Serigne Touba yëpp itam fenn fu ci nekk ña ngi ko fa fanaane di ko dundal waaye fii nag na ko Serigne Saliou waxe woon wax na ñëpp a fi war a ñëw eh, te jii nag Cheikh Mahamadul Basir ñëw fii ci waxtu wi nga xam ne yaakaar naa ne kuy dàkk eh, feeñ jamono yonent bi doo sori waxtu yi dara mu ñëw fekk si fi sëriñ Amsatu waaye fekk fi Cheikh Mahamadul Muntaxa ngir ànd moom ci guddi gu tedd gi ñu déglu kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci ak Cheikh Mahamadul Bachir bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadaana li haza wa ma kunna lawla an hadaana allah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci guddi gi eh, ko baaxoo rek ñëw siyaari siwaat suñu kilifa gu baax ngir di sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ngir ànd ak moom ci dundal gi muy dundal bis bi ci biir kër Cheikhul Xadim di ko siyaare bu baax di ko ndokkeel ci weer wi di ko ndokkeel ci guddi gi di fetlu suñu digg ak moom ndax niñ ko daa waxee rek yàgg na lool ginnaaw kilifteef ak li nga xam ne Serigne Touba ñu ko boole muy loo xam ne eh, dañ koo bokk suñu koo bañ eh, kóllëre ak ak cofeel doxaar suñu diggante bu yàgg goo xam ne su àdduna sépp xam na ndax li ciy firnde mooy lopp ñaar fukki at màggalu Cheikh Abdoul Ahad gu ne këram laa yendu 97 ba léegi kon ñaar fukki at ak ñaar la kon loolu du benn bis moom ci bopp mi itam lépp luy ndax suñu kilifa la te yoon wi xam ngeen ni muy doxe ku ci sa kilifa rek yaay seet ni ngay àndee ak moom waaye moom ni ngeen ko xamee rek dam doon ci waajur mu tedd mooy baax gi ak woyof ak kum gis jàppale di boppam mm, ak kum gis di xool Serigne Touba ci moo tax may itam lépp lu di cër ci lu ñu war a jox ci ko bokk ak koo seqale defal na ma ko ndax li ci firnde mooy. jël na doomam bàyyi la ma wala bu jël doomam jum jur jébbal ma ko loolu kon mënu su ko weesu da mooy li ci gën a tuur wax kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm budul toon loolu lépp nag euh, ak cëru kilifteef bi waaye ñu xam ci yoon wi ndax euh, saa su ngeen déggee kàddoom yëkkati ko ci weesu lu jëm ci luy défendre yoon wi muy loo xam ne itteema te ñor na ko te waxtu ne cere ne guddeeg bëccëg kon loolu rek jaroon na ñëw sant si ko siyaare si ko ci lii itam di ndiggal loo xam ne dafa bàyyi ko woon ci Cheikh Saliou Mbacké mu joxoon ko ndigal ne ko nay dundal guddi gi fii ci biir kër Cheikhul Khadim mu di ko def at yu bëree bëri ñëw na fi bataay fekk ko fi siyaare si ko fi jiitu na lii kon ci ndigalu sëriñ bi la ko defee woon bi fii Cheikh Saliou Mbacke bàyyi ko itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñëw yeesa ndigal la nekkoon na koy dundal bi Serigne Sidi Mokhtar ñëwee itam joxaar kan ndigal ne ko gën koo fonk te di ko yaatal bi yàlla defee nag Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke ñëw daaw bi gàmm gi jub Serigne bi man mii bokk naa ci ñu jëkk a waxal ne man kat dama amoon ndigal ndax Serigne Saliou ma digaloon. ne ma naay dundal guddi gi ci bis fii ñi ko fi wóotu woon tam ko ci mas ak si yeesal ko damaa jàpp ne li sëriñ Serigne Saliou sant ma ko mooy eh, bëggoon ko dundal kër gi ndegam kii borom kër gi ñëw na ngir dundal ko nag kon daanaka léegi man mën na maa yow sama kër waaye boo ko sëriñ bi déggee sëriñ bi ci boppam moo ko wolu boppam ndikk mu jox ko ci ndigal yeesalaat ko soññ ko ci wax ko mu ci war a taxawee wétli ko ci baren ji itam sëriñ bi yeesalaat diggal la comme noonu ma ko ko waxoon santaat ko ngir mu ànd ko moom comme nii ñu ko defee kon ñuy ñaan loolu taxawaay bi mu yàgg ndax euh, euh, dundal gàmmu ci biir kër Sëriñ Tuubaa tawféex la kon nag yàlla defal na ko suñ boon defal ko ci ndimbal defal ko ci tawféex muy ab cëram dañ koy ñaanal mu yàgg te li mu ci fas yéene liggéeyal maam ju tedd ja muy Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Serigne Touba nangu te li ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha waxit ak yéene jim ci am ak positif bi xamal na ko boppam daanaka jurul ma di ko leer leerlaat xam na ko ñëpp xam nañ ko it kon loolu war a kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan ñu yàgg fa ñëw te yàgg ko fi fekk te day ceeg too feex ngir mu sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte mu rëy ak bànneex ci sa tànk yi nga yëkkati ñëw fi fekkoon fi kër sëriñ sa kër maam di Cheikhul Khadim ñi nga dee sant ci sa taxawaay di sant ci sa yitte di sant ci sa yëg di sant ci sa rafetal ci liggéey sëñ Tuubaa gi ku la nawloo laa la ku la fonk laa ku la doyloo laa ndax makaarimal axlaax ah, gende ko ci yaw loolu nag comme nekk ci yow kenn gënatu la ku la mën a sikkee itam man duma ci bokk ndax li nga yenn ci lor ak li ngay muñ ci tiis ak li ngay gàddu ci lor nit man mënuma ko man damaa gaaw a toxoñ ba tax na cër bii la yàlla dénk ku mën a muñ ba noppeeru cër moo ko mën a gàddu muñ gi wax naa li ko waral ndax lori nit ñi yaa ngi koy gàddu cër bi it bokk ci Sëñ Tuubaa ab cër la bokk ci sëñ Abdou Khadir ab cër la waaye it sëñ Tuubaa di la liggéeyloo ab cër la te lii mu lay liggéeyloo yaa ngi koy rafetal ca anam yi gën a rafet man sama bopp kàddu yooyu mënu ma koo yor ndax damaa naqari rek te la sëñ Sall doon wax. damaa dal bang bang ni daa ko mënta muñ bang bang ji ah. nee na koo muñ daf ma ko wàll nag man mënu maa muñ bang bang yi yow yàlla dimbali na ngaa muñ bang bang yaa ngi jëriñ say xarit yaa ngi jëriñ say noonu te nit ka yàqal ak ka lay jéem fakkasal da koy xam ba noppi muñ ko ngir jëm yàlla te doo ko won loolu nag xaayeetu la xaaye boobu dimension bu nga àgg lu jafe la xaj na ki lay liggéeyloo moo la téñal moo la jàppale ba nga mën ko kon nag liggéey bi ngay liggéey tey mu di càmm rek yàlla na nga jofali fa borom bëgg te genn jur bañ a li ñuy wax rek dëgg la ndax euh, murit gi léegi ni mu demee yàqante der gi xastaate bi jëw gi dafa daj adduna bépp daana am sax waaye nag léegi dañ koy feeñal ci pénc mi mooy ci yu mel ni télé yeeg rajo yeeg lu ne hmm? di seet sa nawle boo xam ni walla góor soo xam ni xamoo sikkam xamoo ayibam waaye loo dégg rek wala loo jot ci moom li sëñ Saliou doon wax tax nga di ko wax hmm? bàkkaar gënu ko rëy waaye nag sant yàlla rek mooy ci war ndax ñi lay wax am dañuy yóbbu say ñaawteef waaw ñuy wax ci yow lu ñaaw man bu ma seen ñu wax ju bon ñi ma koy wax ma koy dégg ndax muy sippi samay ñaawteef loolu nag yàlla defal na la ko dañuy ñaanal ci barki sëñ Abdou Khadir ñaanal ci barki sëñ Tuubaa suñu borom defal la gudd fan defal la wér defal la mucc defal la jariñu defal la yëkkati ku tey ëllëg ci barki gàmmu gi barki Seexul Xadim ak sëñ Saliou mu ñuy déggoon tañ defe ko ci duma wax ci gàmmu gi ndax li ci waroon a wax wax nañ ko fee mu jëkk sëy waaye nag sànq yi dafa ci man ndax damaa xam diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir sotti ceeg def ci la la si nag amanoo la ñu bokkoon liggéey yàlla dimbaleen liggéey ba rafet ba sont bàgg njaboot gi mu bàyyi itam njabootu sëñ Abdou Khadir ak njabootu si Abdou Lahad naka noonu la mel amul benn différence seen diggante ay xarit lañ ay bokk ay wël ay taalib lañ mm-hmm. noonu nag sëñ sëñ Abdou Lahad mel noonu te seen i doom mel ni sët yi suñuy sët nag sët yi sëñ laa Lahad ak sëñ Abdou Khadre seenu ndax seen baay di seen baay benn lañ seeni i maam benn lañ kon nag góor-góor leen ba rafetal tool bi lu ngeen def lu ngeen def lu lii du ngeen teer du ngeen yóbbu ndam te ku ne bëgg naa teer yóbbu ndam sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou yi teer nañ ci yóbbu ndam ñu itam wàccuñu yoon wa ñu ngi jaar ci kaw yoon te suñu wàccu duñu yàgg jàpp naa duñu wàcc kon nag maa ngi commencé taalibe yi ak xarit yi ak bokk yëpp ñu rafet la jëm seen i bokk rafetal tey rafetal jëm ci sëñ bi te gëm ko sopp ko wóolu ko di ko liggéeyal da koy ñu koy fekk maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Mbacke